jàngeen jëf jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen di DTV ginnaaw ban sante suñu borom tabaraka wa taala delluwaat sant sunu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul seen émission diisoo tey émission bu spéciale lay doon lu ko waral mooy xam ngeen ni dañoo dëgmal bis bu am solo bis bu rëy ci lislaam bisub Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bis bi nga xam ci la woote woon ni nan ko santale borom bi tabaraka wa taala bis boobu kon mu doon bis boo xam mosu ko yemal ak benn bis ba tax mu woo mbooleem ku naan ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulillah ñu koy waajal seen télévision DTV nii benn fan safar ba mu teroo ak léegi bis bu yàlla sàkk dana am benn plateau spécial mooy wéy tey jii yemoo ak dibeer juróom-ñeenti fan safar 1442 waaye it yemoo ak dibeer 27 septembre 2020 ñu ngi fii ci barab bu am solo barab bu màgg bu nu waxee ni surtout Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul surtout maam Thierno Ibrahim Mbacke ndamal daaru kooku di borom Bamba fépp kooku di Cheikh Ahmadul Bamba Cheikh Ahmadul Kara Mbacke nu rëy ni doon tey sunu invité ñu war a waxtaan ak moom ci ay farnu yu buute farnu yu bari incha allah. ndax xam ngeen ni lu tax ñu tànn ko waxtaan ak moom yell na koo xamante ni bii ban la xamee ba tey dafa am taxawaa booy am ci taxawaayu yoonu murit mu bokk ci waaye di suuxat ak a yokk bu nu waxee Cheikh Amadou Bamba Cheikh Ahmadul Karam Mbacké Noreyni ku ne xam na taxawaayam ak ndaw ñi ku ne xam na taxawaayam ci réew mi ku ne xam na taxawaayam ci lépp luy dimbali askan wi lii moo tax tey seen télévision DTV déplacé wu ñëw ànd ak moom ci waxtaan wi waxtaanee wàcc ay Magal Touba ndax xam ngeen ni sëriñ bi poète la écrivain la bind kat la ci gëstu gis naa ni bind na juróom-benn fukki taalif ak juróom-benn juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukki ak juróom-benn ci juróom-benn fukki fan ak juróom lépp jëm ci Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul kon tey daañu ko jox kàddu gi waaye balay boobu ku ko xam-xam ni. dafa bari ay feem nu muy doxalem ngir wane cofeelam ak mbindam Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul maamam ja incha allah daañu ko bàyyi mu doxal diirub ñar fukki minutes bu ko noppee nag incha allah moom ak ganam gan gi sax incha allah dana présenté wu léegi en direct ak maniinam ñu xam ko ci yoon murit du fi gan waaw gan gi du fi gan noonu la ko waxee ayca kon du fi gan kon incha allah buñ ko joxee kàddu gi dana wone maninam sëñ bi tudd na sàng baatub akasa akasa sàmb ndax xam kon mooy suñ gan ay ca kon akasa sàmb baat baa ngi noonu feeñ na sëriñ feeñal na ko boo noppee nag daañu dem ci palaatu bële incha waxtaan ak moom ci actualité bi ndax ku bëgg réew mi la taxawul xaarul tout le temps ma nga cay def kem kattan incha kon lii mooy doon sunu waxtaan bi bëgg ànd ak yéen tey di ko ànd ak Cheikh Modou Kara Mbacké nii ak sëriñ Akasa Samb bi ngeen xam yaakaar naa ne lii mësul am ci benn télévision DTV moo ko jox tey incha allah askanu senegal ngir waajal màggal gi kon sëriñ bi ñu ngi lay dalal bu baax incha allah dalal bu baax sëñ a sa sàmb asubillah bismillah inna waliyallah bismillahi mm-hmm. allah min kulli karimin akramu mm-hmm. من أمهان خذلها تكرم أشم لها كل كان إيمان ولا اسم الرحمن ولا اسم الإحسان والرحمن الله من كل كريم أكرم من أمهن من أمهان خذلها تكرم أسلم له أسلم له kulaka kulakaan imaani wala azim al ihsaani lirahman lirahman wajjihu wajjihu bishukri bishukri bila kufraani tukfi hisabuha maaniraani tukfi hisabuha maaniraani allahu min kulli karimin akramu man amun xaalo takramu aslim lu kulakaan imaani wala azim al ihsaani rahmaani hmm. wajhu bi shukri bila kufraani tukfa xisaabuha maa niiraan tabarakallah bismillahi wa ala millati rasul manhajil qadim man maa ko wax ni maa wax hakaza ni ko ku tedd ki fu nekk daf nu faa feeñalal yërmandeem kon yërmande tey jii nga xam ne ci bisu dibeer bii fii ci firdawsi ndeem alif lam mim innama sabilu wala tujaadiloo daf nu ci ndar keppal juróom benn fukki isib yi ci alquran seetee alif lam mim innama sabilu wala tujaadilu bu fekkee ñaar fukki xaraf la ak ñeent day taxawee laa ilaha illallah muhammadu rasulullah te ku tedd ki wax ni fuztu bi laa ilaha illallahu muhammadun arsalahu illahu moo tax ma ni ko dafay baax mbaa day gën a baax ñu baaxee murid yi baaxee jullit yi nii ndekete boo baree ay yitte te mokkal ñetti bayit yooyu boo xëyee boo ko jàngee am nga yoolub jàng kaamil bi noonu lañu ko ko tëdd ki defal taqsiran ci yërmande moo tax ma ne ko booy addu bu la neexee ñetti bayit yooyu lañuy baaxee mbokki réew mi mbirum Sëriñ Tuubaa bu ñu nee murit ni jullit dañuy wax ni ku dul jullit lu ko waral irham jami alwara ya hadiyan radaa il est sauveur de l'humanité ndem nag moom li sowe jaam yi moo ko fi indi époque par époque étape par étape humuril insan yaamuru bi tadrij dundu doomu aadama bobine la day taxañu di wëlbatiku di taxañu génération bu nekk mu ñëw ànd kook ñoom sowe leen wax leen ne hawazani lahu min asheytaani waxaadi a fi al awtaan yàlla musal na ma ci saytaane indil na ma njariñi dëkk yépp génération bu ñëw mu wax leen loolu génération bu ñëw mu ni leen wasalaamu ala man itabahal huda moom la daan signé ki nga xam ne mooy am jàmmkat ki nga xam ne mooy réussir kat mooy kii nga xam ne moo jaar ci yoonu jub la droiture mooy siraatal mustaqim loolu moo tax ma wax hakaza ni ko faw ñu tàmbalee foofu ngir baaxante ngir nelante ak mbokki taalibe yi waaye ak jullit yi waaye ak réew mi et l'ensemble de l'humanité ndax Serigne Touba pour ñëpp la ndax irham jami alwara ji moo ko waral wax naa ko léegi bu ko defee màggal gi li ñuy jéem rek mooy jéem a interpréter waxu kilifa gi pourquoi interprétation mag ña ci démb ku tedd ki ay waxam bariwul woon de ndax la muy wax di diyaaleeg boroomam ak malaayika yi ñaare kenn du ko fekke li sëñ Moustapha Saliou wax rek bu wax jotee bu dajaleloo ñépp bu génnee day wax la muy wax ñépp dëggandoo ko mu dellu cib liggéeyam waaye teewul ci mag ñi am na ñoo xam ne da daan wax ak ñoom ni ko boo génni leen boo génnee neel fere yi nangam ak nangam bu tàmbalee ci maam Thierno Birahim maam Cheikh Anta Serigne Massamba ñëppam rek Serigne Mandoumbe ñëppam Cheikh Ibra Fall ñëppam rek mag mu ci nekk man ngaa génn dal ni kat ku baax ki nee na nangam loolu moo tax booba rajo xewagul ak télévision bii rajo xewee ak télévision ak presse écrit kilifa gi ko fi nekkal di xalifa bi bu waxee ba noppi war na laaj ñu settantal wax ji décortiquer ko benn par benn ba xam lan la wund lu ci am solo la waaw moo tax nu bëgg nag bu dee ci mbiri màggal gi benn wax buy wuru sori boo xamante ne bi day woroog base waxi kilifa gi Cheikh Mouhamadul Muntaqa li mu wax leer na naññ dafa fàttali bis bi la ko waral sant le ku tedd ki boroomam mun Muntaxa wax ni dañu koy sant moom ba noppi soo koy sant la boroomam xam nga loolu leer na leer na muridan leer na sadiqan leer na nabilan waaw ndax moo dox suñu digganteek moom waaw ba mu koy gàntale ko doon itam moo dox suñu digganteek moom na mu jëlee alayhi salaatu wasalaam doxale ko digganteem ak yonant bi waaye dégg nañ mu ne dala ni allahu ala muhammadi waxaade ni muhammadun li samadi samadi googu itam ku ne dégg na ni muy waxe ni mu jële boppam ak léppam def ca saatuk samadu ñun nag sunu amee fulla dañuy jël sunu lépp def ci miimuk ahmadoom moo gën a wóor njàng mi baax na werd yi baax na lépp baax na waaye li gën a wóor mooy jël sa bopp ak sa lépp ak sa ñépp dugal ci miimu Ahmadu jërëjëf Sëriñ Tuubaa ji yàgg na fi ba mu mel ni léegi xale yi ba mu mel ni dañ koy foyantoo te fekk foyantoo wuñ ko ay tuut tànk lañ yoo xamante ni bii dañoo bokk ca mu wildaanu muxalladuun dañoo bokk ca gone àjjana ñu koy dégg ci mag ñi di ko toppandoo fekk malaayika yi dañ koy wax malaayika yi dañuy wax jërëjëfe sëriñ Touba sëñ Cerno li mi faatu barki Demba Njaay dafa toog ci wetu sëñ Abdou Khadir radiyallahu ba ci àgg mu fuddu ni jërëjëfe sëriñ Touba mu ne ko tigi jaamu yàlla gu dara mënut a yàq ngi noonu te wax naa leen léegi ci alif lam mim innama sabilu wala tujadilu ñaar fukki araf yi ak ñeent di laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah fukk ñaar la Muhammad la fukk ak ñaar la jërëjëf Serigne Touba fukk ak ñaar la waa ñetti fukk ak ñaar da lay yóbbu ci Allahu akbaru Dieu est le plus grand tàggawut ak ñoom fenn rafatu tawhidi li rabbil alamin wa quttu amdaahi li ahmad al amin diggante boobu rek la daan bàggante diggante boobu rek yàlla yonent bi alquran alquran la def ci digganteem ak yonent bi moom la doxale digganteem ak yàlla buur bi subhanahu wa taala boo wax ak yàlla jotee mu wax ak yàlla boo wax ak yonent bi jotee mu wax ak yonent bi boo wax ak alquran jotee mu wax ak alquran boo wax ak boppam jotee mu wax ak boppam mu des lan ràññee fi muy waxee boppam ak fi muy waxee yàlla lépp weex tàll amul lu fulu amul lu ñuul li may wax ak boppam ak li may wax ak yàlla waaw ni sa mbubb mii ak mbubbum borom baax mii na mel waaw kooku moo ne amare ni rabbi bi an usarriha bi an ni malazun wa mafzahun fa man araada al fii kël tay yi ni fal yalus bii waaw moom moo wax ne boo jàqee ñëwal ci moom boo jaaxlee ñëwal ci moom loolu moo tax dëgg la xam naa ni bu sëriñ Modou tàmbalee li muy laaj du ñàkk mu boole ko ci li muy laaj waaye am na ci boo xamante ni bi réponse bi mën naa koo anticiper mooy lan rek ku tedd ki mënu wax ne hamdan li munzili dono wadaay wa munzili shifaa i wa dawaay sëriñ Tuubaa moo ko wax moo wax ne ngërëm cant ngërëm ki wàcce tawat ji ñuy gis ak ji ñu dul gis moo cant waaye moo wàcce itam ñaari garab yi leen di faj moo tax médicament bu amee itam remède dafa am wàllam loolu laa ne woon moo du bu la neexee ñaar fukki minutes yi nga waxoon juróom-ñett yi delloo naa la ko ah bu ko defee mën nañoo ñëw tàmbali liggéey bi حمدا لمن سيدنا ودائي ومن سن الشفاء والدواء من أمر العبادة بدعاء ليدفع به عن البلاء ثم على من حيث من سامرد يبرد بلا بدء وفاس بالخرد الحكيم أصغى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب زوي العلائح مخدرة الأسامي لشفائي هذا وإني اليوم سأجائي مبتخيا هون المدي بدائي وسكيح الإمام ندرر خدم سني حتى أراني مقتدر يا ربنا bi jaayi xayril alamin al akramin suma bi yum nii ramadan al ansami ya laahu ya rahman ya laahu ya ya rahman ya rahimu ya barru ya karimu ya azimu اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانصرنا يا ربنا خلينا ما كان ما نخاف makaana maa na xaafu maa na xaafu min sëriñ ne xam wóob lanal adaba wal masaya wa kufanaal afaati wa rasaya jërëjëf jërëjëf sëriñ ak sa somb mm-hmm. ni ko cheikh bi waxee sàng cheikh mouhamadul kara doo fi gan dëgg la doo fi gan mm-hmm. may wax ni sëriñ ak sa dafa bokk ci Eh, ndaw yi nga xamante ni biim eh, lii di yoonu murit daf leen di sagoo ndax bi mu nekkee tout tànk ni ma ko mën a waxee ci la fekk ay waajuram ay maamam doon def lu mel nii tey mu ñëw di ko dundal kon macha allah sëñ Akasa Samb jërëjëf ndax itam bu fekkente ni ci jamonoy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul la sa maam bokkoon ci fukki nit ak ñaax ñanu tànnoon doon yëkkati xasida yi kon tey boo ko yëkkateem sa jaan wàcc na ci itam ak sa li mu nekk du ci gan ndax daanaka lee mu mat ñeent fukki at mu nekk ci 1981 ba léegi mi ngi mi ngi ci lu mel nii kon jërëjëf sëñ ak sa waaye itam jërëjëf sëñ Ahmadul Kara ndax tey lii bu amee yow la nga nangul ñu ko waaye itam man koo ànd ak bokki Sénégal yëpp ak diaspora sénégalaise bi nga xam ñu ngi bàyyi xel fu ne ci àdduna bi sëriñ bi nga def sàng waxtaan am solo hmm. xam naa sax bëggoon naa mu gën a sori yow ak euh, sëñ akasa ndax gis nañ maa ngi koy wax sàng ni sëñ bi bindkat la euh, sëriñ bi poète la euh, ndax am na yeneen ak yeneen yoo bind ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñu war a mën a xaar mu génn nag ngir taalibe yi mën koo jariñoo ndax ku la xam-xam la ci xalima macha allah ak it xam bu baax sa maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul waaw jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax Mamadou di sant itam collaborateurs yi sa collègues yi ak ñi nga xamante ni bii ñooy seen kilifa yi. jërëjëf eh, tey saytu DTV. Mm-hmm. Ah, dafa dem si yàlla si jógee ba tey teewul liggéey bi ngeen koy gën nga rafetal. Mm-hmm. ànd koog doomam ni ngeen doonee ay doomam. Mm-hmm. ba tax na ñu leen di sant di leen ñaanal eh, ngeen sax. ba noppi te li ngeen di liggéey lépp malaayika yi di ko nangu ndax liggéey moom li ci baax mhm. bu nit ñi kontaanee itam malaayika yi itam kontaan jërëjëf waaw ndax bu nit ñi kontaanee te malaayika yi kontaanuñu waaw te gis ngeen li xew ci jamono xam nga da ngeen di alterner ndax jamono ko laaj mhm. da ngeen di génnee loo xamante ni bii lu jaadu la di génne lu jaaduwul mhm. te du ci yéen waaw da di génne lu jaadu génne lu jaaduwul tey jubluwu leen ko ci jamono ko laaj waaye fekk na ni ku tedd ki ci yërmandeem innal xasanaati yuzhibna sayyiati yu rafet yi bu ñëwee day effacé yu ñaaw yi mi ngi mel ni rek li ngay bind ba noppi neexu la nga gome ko ba tax yu rafet yi yu rafetul bu ñëwee tey nuru am po wala leneen yu rafet yi bu ñëwee daf koy effacé moo tax loolu ne ci seen xel dal macha allah alhamdulilah ginnaaw loolu ginnaaw loolu li nga xam ne bind naa ko ci ket ku tedd ki Mamadou dafa bari dëgg la moo tax may wax xale yi di leen ñaan murid yépp kenn ku nekk mu mokkal ci benn bu la jafee nga jéem a mokkal Bamba wéetal yàlla ba mu kennal ko liggéeyal yonent bi ba mu settee ko jutta bi mufradin lanaa faaxal jumal xutta lanaa mux jëla jaysin wa amal bokkul ci benn rang macha allah il waaw loolu moom yomb na damay ñaan murit bu nekk di la yalwaan nga li ma bind ci moom nga mokkal ci benn bayit balaa jafee nga jéem a mokkal boobu boobu dafa yomb alhamdulilah macha allah ngir ñëpp jërëjëf boobu dafa yomb bamba wéetal yàlla ba mu kennal ko mhm. liggéeyal yonent bi ba mu settee ko moom laay ñaan murit yëpp ak ñi dul marit ndax man am naa ay turandooy catholique mhm. moo tax ñëpp laay ñaan loolu dëgg la bu dee hakaza mi nga wax léegi dafa am benn lu ñuy tudde zaid plus boo xamante ni bii ku tedd ki daf ko ko defal hmm. moom ba muy nekk tout tànk ku mu ko nettaliwul xamoo ko hmm. dafa dem ci àll bi yoreb sàrtoom di wut ñax gis ko taxaw ci kanamam te xamul fu mu jóge hmm. mu njëkk yam ci dàll yi karbat yi di sëgg di xool ko ba ca kaw mu dindi kaale gi mu gis jib ji mu jàpp ci sikkimam yëkkati ko ŋaal ko tifli ci gémmiñ gi wan ko ginnaaw di dem hakaza topp ko ba mu dugg ci benn école mu ñëw bi ci bunt bi fekk gardien bi taxaw mu ne ko góor gi dugg fii laay topp mu ne ko fii kenn fi mu ne ko kenn romb ma fi lu <laughs> ma nit di rombe fii dugg ci école bi te gisuma ko mhm. ñu ànd ñoom ñaar dugg ci biir wër wër gisuñu dara foofu la ko tedd ki jaar ak moom moo tax ma ne ko maddaliyal xusna ji mu wax wa mhm. maddali zayed zayed boobu mhm. waaw dala caa dugal. ay mbóot la ci biir. Ah, lu bokkut ak kenn. <laughs> alhamdulilah <laughs> eh, ci ci mbind mi maa ngi wax sàng ni eh, ci eh, ab record ku xam bind ak ni méttee xam ne ci juróom-benn fukki fan ak juróom-benn. loolu laa bëgg ah? loolu. <laughs> waxin la ca jamono booba rek. jamono booba waaw. waaye li ma bind. ëpp na loolu fi mu nii. bu ñu ko xaymaa. Mhm. nag dafay toll ci juróom-ñaari junniy téere. xam nga bu ñu rek téere la moo xam téere bu ndaw. ak bu gàtt wala bu gudd. waaye juróom-ñaari junni daal. set ñaari junni 7000 poèmes. ko xaymaa ëpp na ko sax bu ñu ko xaymaa woon na ca tool. macha allah waaw mais sang bi. ñaar fukki at yeeg ñeent weesu. waaw li ma ci bind lépp bu ñu ko xaymaa. woon euh, kañ la war a mën a génn am loo ciy xaar wala am na ci génn. luñ euh, ko war a mën a gën a jariñoowee man bu ma ko waaw li maanaam fii mu toll nii xam nga ku tedd ki li mu bind lépp ci yàlla ak yonent bi ak alquran mm-hmm. ginnaawam la ñu koy génnee njabatam gi ku ñëw ak la ngay génne dëgg la dëgg la lii itam nag man damaa bëgg bala ma fiy jógee fekk lépp génn alhamdulilah ndax jamono yi bokkul mhm. jamono jii génne ko day yomb mhm. jamono ji waaw jëmtukaay yi ko day yomb moo tax ma bëgg xale yi di ko génnee nu ne moo tax yi nee naa leen ni ngeen di màggalee mooy kenn ku ne na ci jéem a mokkal benn loolu laa wax ñoom borom baax mhm. waaw macha allah ndax xasaayid yi ak alquran ji mi ngi fi waaye buñ ci jógee ba ciy teg taalif yi nga xamante ni bii mag ñi daanañ ko taalif ci moom muy Serigne Moussa wala Serigne mbay Jaxate wala Cheikh Samba Diagne mbay wala ku mën a doon yooyu it buñ ko dee génn nañ ci boole yii nag ndax yii dama ciy dugal lu nekk mhm. dama ciy dugal français di ci dugal anglais di ci dugal lu ne laa ciy dugal. macha allah waaw ndax jamono ko laaj. jamono ko laaj ndax euh, fi jamono tollu la. Mhm. ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mhm. euh, dafa jàngal jamono ju mhm. moo xam ñi ñëwagul ak ñi toll fii tey. ci macha allah Sénégal doon dëkk bu bari ay ndaw. bu sukkandikoo ci ANFD xam nga ni daanaka Sénégal téeméer boo jël euh, juróom benn fukk baag nangam ay ndaw ay ndaw lañu. yow xam nga ci dara ndax misaal nga ci. macha allah saa yoo wootee. dafay teew ci ay ndaw ñu ngi fàttaliku ay jamonoy 99 ba 2000 dañ daan ñëw fii stade Demba Diop ngay dajale ndaw ñi ci bis yu am solo bisub 31 décembre booba ñu bari ñu ngi jàppoon dañoo war a génn mm-hmm. dem defi leneen ci guddi gam mm-hmm. yow nga ni déedéet mm-hmm. léegi nag maa xeex ak ñaneen ñi ba fexee téye ndaw ñi ci lii kon day wane ni kon ndaw ñi am na cër bu mag bu nu am waaye itam ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. ak mag ñi ak mag ñi nar a jëm fenn. mag ñi nar a waaw bien sûr tey ah. Sénégal tey nu war a gën a jëfandikoo njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba. ci waaw maanaam ni ñu ko war a gën a jëfandikoo rek mooy intégré ko ci enseignement bi. Mhm. waaw ci éducation national waaw bu ñu dee jël. waxi ko tedd kii nii ku ni ñuy jële dégg naa tàmbali nañ jël kun kaati man li duri wal bu saatanal loolu rek bu ko defee bu ànd rek ne ñi ñu koy jàngale xale yi ñoomit ñu koy def noonu ci école yi rek ñu koy màggale xale yi di ko màggale rek waaw maanaam dañoo war a gëm sunu kopp ndax moo wax ne xadda anqanil yow ma hubbul ahli wal watan an darki malisawil anwari wal fitan waaw ba muy soog a jóg daf ne dara gàllankooruma lu dul bëgg sama réew ak sama ñooñi réew ba tax ma fi ma jëm ci borom leer yu kawe yi. dëgg la modestement. <laughs> waaw ci na ma daan nii sëñ Mountakha wane di wàcce boppam te ma wax ko barki Dembo Ndiaye rek. waaw <laughs> ah, moom it daf daan wàcce boppam. moo waral lépp tu musta toog ci kaw. waaw fi mu toll bu dul woon ak liggéey ak jamono nun ñi ñëpp ci suuf lañ war a toog. dëgg la waaye moo nu ko may moo nu ko defal. dëgg la moo tax bu noos jotee bu nu neexee di noos. <laughs> ci lu dagan nag. macha waaw xam nga noos noos la noos du dara lu dul lu neex ci sa xol lu neex ci sa xol li neex ci sa xol nag bu la leeree ni moom naqariwul malaaka bu la neexee noos mm-hmm. Mm-hmm. Eh, tey tey ñi ngi dëgmal euh, màggal gi ma ñëw ci mm-hmm. mu tombe ak jamono boo xam xam ne yaa ngi koy bàyyi xel bu baax euh, tey euh, ban façon màggal ndax ñu bari dañu gëm ni tey de la màggal gi nag war a am beneen taxawaay jamono bi ñu ñu bari jàppee ni adduna bi mi ci ay jafe-jafe jamonoy crise sanitaire mondial jamonoy crise économique mondiale mhm. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tey kon jàpp naa ni am na leneen lu nuy xaar loo xam jàpp nga ko ci jàngat ci bis bi ak jamono yi ñu toll tey ak ni màggal gi ñëwee tey dégg naa koy wax mu ne lu bari ci ay événement religieux tey amul waaye màggal Tuubaa moom incha allah ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax loolu jàngat bu ñu ci war mën a am waaw amul benn jàngat bu ma ci am lu dul ni ko sëñ bi waxee hmm. xam nga daa am ko fi nekkal hmm. bis am lu mu moom mu junjoon ko bu yàgg dal ni sharaha lii sadri sharaha lii sadri lada ruju'i waaw li baladi li baladi la wax wasaana ni an jon maanaam mu mel ni dafa nekk Mauritanie di wax ni ba mu nekkee fële Gabon foofu la ko yàlla xamale woon ni ko day dellu mhm. moo tax nee mu amul ak mu amal ak cant mu amal ak cant moom boroom moo ko waxal boppam waaw ndax ne na ca la ko yàlla xamale woon ni dina dellusi te dina tàggoo kub xiif wasaane ne am juuxi sharahli sadri la daaru juuxi li baradi waaw wasaane ne am juuxi allah loolu nag am na jàngat ndax ñi ko fekke jamonoom wax nañ ni aw ñam moom xeru ci woon ndox naan di gundox gund xeru ci woon mhm. moo tax ba mu nekkee ci ay jafe-jafe ak mettit ak tar-tar yitam bu ko bant jegee bu tooy boo xam ni mënta ñàkk mënta ñàkk jàllale dara ci gémmiñam day jël bant booba damm ko mhm. ndox ma cee génn mu koy muucu loolu li tax ma wax ko mooy wasaane ni am jooy ji mu wax ku ne xam ne ne bu fa jógee ba ñëw bu tàggoo xiif itam kenn xamalu ko lekk gu bari mës na am ganuk shérif goo xamante ni bii bu waxtu reer jotee gan ga dani moom day xaar reeru sëriñ bi mm. shérif ba ña mu àndaloon ndax ab shérif ñaari fu muy dem dina am ñu muy àndal ay taalibe ña mu àndaloon reer muy reer bu mucc ayib moom mu ni day xaar ku tedd ki ba ko ku tedd ki wooloo ba mu ñëwee laax sam fekk ca kanamam ak daqaar bu ñu suukarul ba mu ci nee nii baaraamam da ko ne lii kenn mënu koo lekk te moo ne woon day xaar reer ba waaw mu soo ko yebal mu dellu nag ñu yottaat ko reeram nag bi mu war a reere mu soog ko nangoo reere ndeysaan loolu day wane waat beneen dimension ci dëddu gi ak it ku tedd ki ni ñu koy faral di waxee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul euh, mi nga xamante ne bi am na taxawaay bu mu amoon loolu nag lépp jox léppam sunu boroom ak yonenteem bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, Cheikh Ahmadou Kara ñu dugg nag tuuti ci jamono ji tey ku ne xam na ni màggal gi moom xam naa ni yaa ngi waaj ak mbooleem taalibe yi ngir euh, def nga daan def ci dëkk bu sell ba jëmbul xay na euh, waaye ñu toll ci jamono joo xam réew mi dafa yëngu ci ku xam cheikh bi xam ni kuy observé la li xew ci jamono ci côté actualité politique économique sociale ndax am nga parti tuddee ko PVD kon nga xam ni yaa ngi bàyyi xel li xew ci réew mi tey cheikh bi jamono ji réew mi toll tey nu kilifa diine ko gisee tolluwaayu Sénégal manière général gis nga ay inondation gis nga coowal politique bi d'abord su ma sañoon tàmbalee ci inondation yi ndax am na taxawaay ba daan am yaag taalibe yi yabal leen ci ay barab ñu dimbali askan def fa ay weer ay fan yu bari taxaw askan wa tey Sénégal amaat na situation yooyu tey lan moo xew exactement. waaw waaw li xew noo ko gisandoo. Mhm. xam man dama fi dul nekk di wax naan lii jag na lii jagul. waaw mhm. samay wax lenn képp la. mooy joxoñu ku tedd ki daal bu ñu ko toppee hmm. bu ñu ko toppee maanaa dañuy prévenir maanaam fi ñu toll nii li ñu war a def bi yu weesoo seetaat mbir yi lan mooy tax ëllëg bu ma bu Mikaayil ñëwatee ak ndoxam mu bari fenn du taal loolu la war a set waaw waaye bu xasee fekk jaan fekk jaan romb ba jàll nga topp ci watif way dóor moom hmm. inondation yi ñëkkul ren jàgg naa am yàgg la dëgg la dañ fexe ba duutul am loolu rek la wala xëyri yi loolu nag les gouvernants ñoom la war mhm. tey boo amoon benn projet lan ngay jàpp lii bu ñu ko defee mooy doon problème man sama projet moom mhm. benn projet laa am mooy liggéeyal ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo tax mhm. may prépare sama révolution révolution bi wutuma ci wettal doonul structure ci sama bopp la ak sama xol ci mm. xel mi la ak xol bi waaw révolution bi woowu ma ci kenn mhm. lu ci jot lu ma ci war a wax dinaa ko wax lu ma ci war a def dinaa ko def mhm. dëgg la <laughs> diwaanu Bamba fépp a ngi fi ñu ngi def seen liggéey mhm. ni murid yëpp yi defee liggéey ci kuréel yi la xaq ngi fi ñu ngi tàmbaliwaat seen liggéey ci kanam ngir wane ni projet de société Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul hmm. moo mën a jëme réew mi kanam loolu nag ca kanam la waaye ñaari yooyu lenn lu ci nekk hmm. dafa am ñu ma koy dénk di leen superviser waaye du man maa wax cay yi nekk cay wax ma nekk ci beneen liggéey hmm. di bind ci ku tedd ki ak di fas yéene préparer sama révolution révolution bi nag mbay ci sa waaw tànk en commençant par Sénégal mais Sénégal rek taxu maa jóg Afrique rek taxu maa jóg adduna bépp ma tax a jóg ci révolution bi mais ci domaine yëpp domaine religieux d' abord. <laughs> domaine religieux. d' abord. <laughs> waaw waaye ci domaine yëpp la révolution bi ci domaine yëpp la. <laughs> gis nga li ma def tey nii ak Hakaza révolution sama révolution la ba. waaw li moom lu bees la. muy muy lu am solo sëriñ bi mais bëggoon nañu xam tuuti ndax dañu diglu sa kàddu. Hmm. ndax tey ñi fi aw ci ay bopp réewum Sénégal tàmbalee ko ci président Senghor Abdou Diouf président Wade ba tey président Macky Sall ci bopp réewum Sénégal. ñoom échec bi fan la ban côté la yaa ngi wax ni bu buñ jëfandikoo woon njàngaleem du Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Sénégal bu na fii mais léegi lan moo leen bloqué mbir mi fan la ba tax Sénégal tollu fii te nu am Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñëpp ko xam mooy système yi ñu jëggaani mm. socialisme capitalisme mm. libéralisme et cetera baat yooyu yooyu la ndax duñ ñu yàlla nee na duñ ñu yonent bi nee na mm. duñ ñu Sëriñ Tuubaa te li yàlla wax yonent bi wax ko Serigne Touba wax ko loolu mooy jagal adduna donte adduna neexute jagal itam moo ciy tane loolu mm-hmm. képp la di ñoom ñett doo ko ci jiiñ kenn doo ko jiiñ Senghor doo ko mm-hmm. jiiñ Abdoulaye doo ko jiiñ doo ko jiiñ Abdou Diouf mm-hmm. waaw Senghor a tubaab bi Abdou Diouf a doon Senghor doon Abdou Diouf Macky doon Abdoulaye Wade continuité la ñoom ñeent du ci kenn ñoom du ci kenn waaw maanaam système yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo fii ci réew mi mm-hmm. loolu moo tax nag ñu war a génn nag idéologie ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul indi une nouvelle système boo xamante ne bii moo gën ci réew mi mm-hmm. moo ne ñoom mënuñu ko Hizbul Haqq ko man waaye ñoom ñi ngi dem ci këru diine yi ñi ngi dem Touba nekkul ci yooyu ñi ngi ziar kaay ma wax la fii tamit moo du ci dem fii mbaa faa mbir mi fan du loolu mm-hmm. du loolu système un système c'est le un système système la amul dem dem dem dem gi dem gi ñëppay dem Touba du ñoom donc dëgg la walla <laughs> mhm. mais tey bu ñu gisee mu toll fii ci nga doon ku wëlërante wu ak président Macky Sall. ndax xam kon ñëpp a wëlërante moom a ah, du man de. ndax xam dama cee xaabaabal rek. ndax xam kon dañu lu diglu ndax dañu lu diglu say idée <laughs> wala joxoo ko yenn secret yi pour <laughs> Sénégal. Ah, léegi question yooyu nan lay jariñ lu muy jariñ réew mi question yooyu du jar parce que c'est un peu mhm. personnel. man dama bëggoon rek. Mhm. question yooyu moom. relation sama diggante Macky wala keneen ak keneen. yooyu du jariñ réew mi dara. ñiy dégg ñiy déglu amalu leen benn njariñ li leen di amal njariñ mooy fan lañ jëmale Sénégal nan la ñuy def. ba mhm. inondation dootu am. nan la ñuy def ba Touba am autonomie. Mhm. loolay wax ji. Mhm. waaw waaye du ay relation xam nga da nga ni ma am na looy wàcc. sa diggante ku tedd ki muy ab révolution religieusement mu des yi ci voilà mais nag révolution boobu tey. Hmm. laataa ngay ñëw di am foo ciy toll dafa am ñu fi nekk. Mm. te ñi fi nekk mu am ci kook tey ci boppu réew mi. Mm. ku ne xam na ni yaa ngi naan wala rëy yëpp la dëgg la waaye yow da nga cee ni nga ko waxee sàng ndax xam dañ ah, du diglu li ma ci téye de li ma li ma ci li tax ma xaabaabal ci de moom. dama ko dul kafe muy. ah xam xam nga ko ma xam ko mooy jërëjëf Serigne Touba ji nga xam ne rek moom mi ngi fépp rek te ca ba nga ca kaw na mu nekkee ca kaw noonu la wàccee ci suuf mhm. waaye loolu à part la ça n'a rien loolu l'essentiel l'essentiel ça n'a mhm. rien à le reste mhm. le reste mooy ñu ñeme une idéologie bu bees tàq waaw un africain un sénégalais un saint waaw un sauveur de l'humanité muy wax ni sérénité ak paix dara du ko maye lu dul bon intention bonne parole et bonne action mhm. avec constance laa mulazamatul xayr maa ko ci daawul boole rek waaye noonu la ko bindee mhm. neetul xayr wa xawlul xayr wa fexlul xayr wa mulazamatul xayr loolu la ko tedd ki wax nan dem foofu ba xam mhm. base bi du dara lu dul dëggal jubal leeral dëggal jubal leer xam nga wax naa leen yéen journalistes yi mhm. ni leen jamono tax na lu nekk ngeen di génne ah. lii di rafet lii du rafet mhm. lii rafet di maske li ñaaw hmm? xam nga wax naa la ko dëgg la noonu la lépp demee nag du yéen képp mhm. foo dem fu ne looloo nga fa ñaar lu rafet ak lu rafetul ñaar yi waaye toujours nag nañuy bàyyi xel li rafet parce que toujours li rafet mooy ëpp doole leer mooy ëpp doole lëndëm ci lu wér euh, mais bu fekkee tey ni nga ko waxee dëggal jubal mooy tax am réew ak leeral dëggal jubal leer mooy tax am réew mën a développé wu waaw mais tey Sénégal moom loolu sa gisee maax ko mhm. ñëpp mënuñu loolu hmm. ndax yàlla daf na bind waralenu yàlla daf na bind wóotalenu dëgg la waaye dañuy tànn ñoo xamante ni bi looloo ngi ci ñoom mhm. hmm? ñu leen di saytuloo yëf yi ñëpp li ñëpp bokk waaw justement ci tànn boobu tey bu fekkee tànn boobu ci leen jëm moom jarul sax nga ciy poser question parce que ci leen jëm àla kulli haalin yii ci leen jëm soppeeku kon faaw liy jóge ci réew mi soppeeku non ci bari day soppeeku loolu jarul sax nga ma ciy poser question parce que ci logique boobu ñun lan nekk te xam nañ fi fi mu jëm ndax mën dañoo am xëy na ab app ñu ni ah bi <laughs> loolu yàlla ko xam ne bu ñu àggee barab sàngam <laughs> ndax nag ñu ngi jub élection présidentielle di wax waxu 2024 élection jubaguñu ko de lu ko jiitu ñu ngi wax élection locale malakal mawti mhm. nangam laa reere ngoon sax wóoru waxuma laaj nag di wax mhm. waxi suba mbaa waxi mois prochain mbaa ane prochaine mbaa mhm. nga élection lu des ñeenti at luy loolu xaa bala nga ne naam ne fa loolu bu ko kenn xalaat ay élection ki yooyu déedéet na nekk ci li ñu war a nekk fexe boole xol yi d'abord bu xol yi àndee ba noppi nag ñëpp yi kontaan xamoo àjjana dafa neex àjjana dafa neex gisoo fi ñu nii Euh, daat yi ma kii tàndarma yi ma grignoté fi mu toll mi ngi mel ni maa dàq lekk ceeb ñëpp te lekkuma ceeb ndeysaan te àjjana ji may dund a tax mm-hmm. loo ñam lu mu tuuti tuuti rek da ngay féex da ngay nekk à l'aise ba noppi te da ngay sawar mm-hmm. gisoo fi mu toll maa la a sawar ndax maa ngi ñàkk te yow ñàkkoogu ah, ah. <laughs> pourtant sawar naa de <laughs> ah. <laughs> yaa ngi wax naa mën am yaa ngi sofewu ci biir waaye sawar naa de li ma la bëgg a wax mooy. gis nga ñoom ñii di gouverner. dëgg la nañu def attention. te gën a góorgóorlu. humril insan am amru bi tadrij nguur day naxe. Mm. nguur day naxe de foofu daal laa yem. sëñ bi loolu menace la. wala information boo am la ah waaw menace la wala information boo am la nga xam naa sa sa sa gaañee kenn ku la ci gën di jàmbaar mos ngaa gis ab chef d'état ku koy menacé Abdou Diouf mos naa ko Abdou Diouf naa wax soxna ni ko soxna ne ko bu ma mere nit ñeen i boole ma ne ko président man su ma la meree lu mu lay wàññi yow yaa ngi ci sa bureau boo fa jógee dem sa pale boo fa jógee ñëwaat ci sa bureau mhm. ma ne ko mer daa metti di ma ne ko <laughs> waaye déedéet ab chef d'état kenn du ko menacé mhm. da nga leen di kii rek nga leen di baaxee li nga xam ne moo gën ci ñoom rek. moo war a mais ndax ndax tax dëgg-dëgg nag c'est li ngay wax nii nii nañu bàyyi suñu boroom ak waxtu yeeg la cay xew. waaye nag bu ñu war ci rek mbirum doomu aadama rek. waaw xam nga loolu itam su ma loolu waxin la rek. voilà justement déedéet xam nga loolu. Mhm. ni nga koy firee mooy ñu koy bàyyi xel. ci ni. Mhm. malaayikaam yi du ñu juum te dañoo gaaw. wer na te du ñu jaawale seen li ñuy def. Mhm. benn seconde du du du ñu ñu tardé. dëgg la. mais yàlla dafa bëgg rek moom nga koy bàyyi xel jamono mm-hmm. bu nekk rek wazkurullaha fi ayamin madudat mm-hmm. la ko tedd ki wax dëgg la waaw mm-hmm. te jële ko ca alquranul karim fi ayamin madudat boo ko déggee mooy dimanche bi ñu nekk ba ba dimanche bi dellu si mooy ayamin madudat waaw ñu ciy fàttali ko yàlla c'est important looy dugg lu nekk rek jox ci yàlla wàllam mais boo waxee noonu day mel ni kon sëriñ bi am na lu muy wàcc da ci baax nag Sénégalais xam tuuti man mi man li may waaj wax naa la ko fii mooy sama révolution ci domaine yëpp mais bi xam naa ni yaatu na ci domaine bépp ah. mais ci lu gën a jege mission bi foo jàpp ni tey ndax lépp loo gis dafa am ah. ay waxtu julli am na waxtu ah. waaw waaw loolu nag xam nga wax naa la kon lépp lu am ci réew am na waxtu yu am léegi nag Modou man wax naa la léegi ni la ñaari structure ñoo ma séq mm-hmm. dafa am lu ñu tuddee diwaanu silkul jawahir fii axbaari sarair mm-hmm. bamba fépp ji xew mm-hmm. ñu kole ko ca vocalement macha allah hmm? mhm. waaw bu ko defee ñoom ñi ci nekkoon bërki démb bërki démb te néewaguñ bamba fépp te fekk bamba fépp existence bi yàgg na mhm. waaw ku ne xam ne ni foo dem ci àdduna bi ñu ne la kër Serigne Touba barab sàngam loolu mooy mhm. bamba fépp dëgg la communauté la doonul structure doonul lu kenn créé dëgg la Hizbul Haq doonul lu kenn créé waaw danga koy yëngal rek di ko yeesal man nag bi ma ko yeesalee ba noppi nag dafa am ay kàngam yoo xamante ni bii fii mu toll nii ay jàngalekat lañu ñi ci ëpp ay professeur lañu. Hmm. ku ci nekk ak la ngay jàngale. macha allah ñooñu fi ñu toll nii eh, ñoom lay dénk Hizbul Haq. te loolu dina leer ci kanam balay fin d'année incha allah. liggéey yooyu nag ñi ko war a saytu bu ñu ki nekkee di ko saytu man damay nekk sama liggéey man sama liggéey mooy xasaa yi di ak di tàgg ku tedd ki waaw di tàgg ak catégorie doomu aadama yi ni ñu waroo catégorie bu nekk may jéem a settantal lan moo leen di defaral <laughs> lan moo leen di defaral seen réew ak lañ moo leen di defaral seen xel macha allah waaw ndax xasayidi xasida bu nekk <laughs> ak la muy saytu <laughs> fi mu toll marigee ku yëg ku yëgul am na lu fa jës bu def jës bul xulub jës bul xulub waaw lii fa xew barki dem boo njaay am na fa lu fa jës bu def noonu la ko beneen xasida di defee feneen ak feneen ak feneen ak feneen waaw donte adduna du jàgg itam dara waaw fi mu toll daal bu nu bu nu ñemee bu nu ñemee waxi ku tedd ki rek. li mu nu jàngal ci suñu façon suñu mode de vie quotidiennement. Mhm. bu ñu ko respecté rek kenn du jàmbat. kenn du jàmbat gis nga li ñuy jàmbat ci ak ñàkk yépp mhm. mooy ñi yàlla jox ñu am dañoo deful li leen yàlla digal dañ ne la boo amee ki nga dendal te amul. Mhm. séddoo ko ak moom. yow fi ñu toll nii boo dëkkoon na ko milliardaire. fi ñu toll nii bu la joxee 500 millions rek. doo too am riche Ah. <laughs> li yàlla wax la ñu defut la ñu defut ca loolu réew mi ak nim bindoo moo tax fi ñu toll nii moo tax fi ñu toll nii inondation bi mu amee waay kër yi tëje mhm. ak immeuble yu eggagul yeeg ñëpp xam nga ku këram fees mhm. ay bagages yam yëpp tooy amul choix boo ko yóbboon ci immeuble boo xam ne donte amul ay porte itam mu mën faa nekkati dëgg la dëgg la dëgg la euh, sëriñ Modou Karam euh, macha allah fi ñu toll la ñuy continuer tuuti da tuuti Afrique man kay bu la neexoon sax ñu jëm timis xel dem ci Mali <laughs> hmm. daañuy waxtaan tey incha allah ci ay poñ yu bëri ndax waxtu wee passé émission bi ñu njëkkoon def ci diw dafa xawoon a gàtt hmm. ba muy jeex sax xam nga ni waxtu yu bett nañu lool hmm, tey incha allah am nañ occasion fii ba 17 heures ñaari waxtu ñuy waxtaan waaye nag bëgg naa tamit nga wàcce niveau bi ba ñëw bi ni ma koy wàccee. xaaral xaaral mbir mi dafa. dafa <laughs> ah, bu ñëwee ñoom Abdou ah. <laughs> dafa xaw a bàcc ne ba ëpp. déedéet bàcc ne li ma la wax dafa xaw a tëju. dama ne la ñii di gouverner. dama dama la wax lu leer nañ <laughs> man ñii fi nekk nii mag Macky ak i gaayam. nañu soppi man li ma wax dafa leer. jaaral fi ma jaar. waaw nañu soppi ñoom ñi ñoo war a soppi doxali nii ñoom mag mm-hmm. Macky ak ñii ñuy doxalee état bi ci boppam. Mm-hmm. ñoo war a soppi ni ñuy doxale man li ma la wax leer na nañ mm-hmm. nga naan dafa bàcc ne waxuma fi lenn bàcc doo xam nga boo mm. a xam élection élection présidentielle incha allah dañu nekkat bu ñu ci àggee ndax candidat nga wala déet sëñ Modou Kara wala ngay am candidat waaw léegi wuyu ma fi <laughs> <laughs> suñu bot léegi nag xoola ñetti volcan yi mhm. bala ñu caa egg nag bu bu yi déclenché woon ko tal bu fekkee déclenché woon ku tedd kee ci teg loo xam rek bu koy teggi musiba yam déglu ma wax la fi mhm. bu ñu fi waxi élection jotagul waaw jotagul <laughs> daal laa mhm. foofu moom ah? am fi satisfaction bay ba nga def nii ah, rek damay ragal ni mbaa dafa am da ngay bañ a waaj comme que ci réew mi fii ku fi waaj ku fi waaj boo defu ndànk xam nga ba ma ko tedd ki baaxee wajaxal qulubana ala ah. tawadudi mm-hmm. ila tanazuhin wala tahasudi mm-hmm. wala taxasumin wala tadaburi wala tabaxudin wala tanafuri mm-hmm. logique bi nga nekk bi ngay wax ne nii man foofa dinaa am ñoo xam ne dama leen di tànnal dugal leen fa waaye man dugguma ah. dugal leen fa yore télécommande bi mais nag su ma leen fa dugalee itam nag bi ñu ca eggee la ma bëgg a waaw ndax la ma bëggoo dee fekk ku tedd ki bëgg ko mhm. macha allah man moo du ni yow maa wax loolu <laughs> waaw loolu leer na kon incha allah nañu xaar sëriñ bi ak ñamay commandé